soror bi daa jékki ko de sëñ Yuusu asaar amour asaar n'existe pas mbirum yàlla mel ni mbir la day day yàlla day feeñal lim feeñal sëñ Tuubaa nag dara dootu feeñ lu ko ëpp doole kon foofu lay tëjee sama kàddu di di nuyu soxna Soda di ko delloowaat nuyoo bi boobu ba léegi sëriñ bi daf maa booleeg moom mu Sëriñ Abdou mbàkk Mbàkke mi wasilaam dafa maa booleeg moom soxna May nga ne toog teew teew bu rafet ndax dooma ma doomi sëriña ma waaye dooma ma lu mu nekk soxna May ngi ci soxna May laxat soxna May laxat moom la sëñ Abdou Karim tuddee soxna May laxat mu sëriñ Abdou laxat ma nga ne toog man def naa ci ñaari émission ci ab site Touba la woon kër sëñ Abdou Karim ñu ñu amaat beneen émission démb ma ñëw di ko def si ngir war a dellu maag si eblaat mi si eblaat sàmm mi émission bu doy waar la émission boobu nag bi ma ko defee ba nag soxna sood na ma doo mën a dellu moom xam na occupation bi ma am sama diggan digganteem ak sëriñam waaye sëñ bi xam na soxna soodu xumba ci pëstéef ak ku bëgg ndax dañoo yàgg cey waaye yëf yi léegi la waaye bi muy ànd ak sëñ bi yàgg na lu mu dugg rek sëñ bi ne ko da ci am ndam ba tey jii ndam loola mooy sartaag ba sëñ muntaxaa mi nga xam ne yàlla ubbi na ko ci lépp ndax daa jàngi ba xam li muy war a xam jàngi sëñ Tuubaa xam nga sëñ xam nga maam seera euh, sëñ Yuusu sëñ Muntaxa dañoo jàngal loo xam ne murid yëpp nañ ci bàyyi xel bàyyi xel damaa jàng ba xam li ma war a xam xam li ma war a xam ndeke sëñ Tuubaa du lu ñuy xam lu ñuy jàng di dem rek la ma dama dem jàngi sëñ Tuubaa yaa ngi dégg ba am ci tawféex kon des na ba am ci tawféex kon sëñ Pape sa mag jële muy soxna soodu xumba dama wax ne nañ bàyyi jaawale bi pas-pas jigéen yàgg na koo am ci lislaam ba am ci fu mu ba àgg fenn fi nañu bàyyiwaat xel nii aay yi ñuy ilhaad yàlla nee na inna allazina yulhiduuna fi ayatina laa naa yaxfawna naa yàlla nañ jàngale lim jàngale xam nga seex dafa am kilifa gu ma sa wax ne bëri na kaang yoo xam dañoo jàng ba pare liñ jàng ñu def ko mbaar toog ci def nga dégg nga wax ji de jàng ba noppi def ko mbaar toog ci fii may waxee yoon ni li yàqu ci kër yi yëpp li yàlla wax ne ku la xibaar na ko gëstu doog a wax moo ko yàq buñ la xibaar da ngay gëstu doog a wax yàlla jox na soxna paar bu rëy ci lislaam ki njëkk a faatu ci lislaam Sumayya la Sumayya liñ ko doon wax loon ne ko unkuri Muhammad waskuri hubal weddil Muhammad ci tudd hubal alxuraan mayoon na ko man kafara billahi min baadi imaanihi illa man nukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin man saraa bil kufri sadran fa alayhim xadum na allah yàlla nee na bu ñu la weddi looyee nga weddi ci sa làmmiñ bañ a weddi sa xol nee na nungu naa ndax bañ laa rey bañ ñu rey la nee na nungul naa la ko waaye moom dafa bañ ne ko mbérëngaan la ak la muy béréng moom la gënal daal ne ko yaa ayuha alfaxaazul basi alxabi ci la ko reyee kon suñ demee ci yoonu yoonu suñ tubaab yi soxna Soda Xuma mii jébbalu si Abdou Karim di ci dox di ci dox di ci dox di ci dox alalam du ko fekkee pas-pasam du ko fekkee xam-xamam du ko fekkee ba ñu xëy def ko ñii ñu ko def doxin la li ñuy tare sa li ñu sari jigéen ku ne xam na ko jigéen bu jul jotee ci ginnaaw lay ne te diggam ak góor ñi sax daa war a soree wërta wërta wërta wërta jiite julli wërta euh, wërta tudd doom wërta gi waaye pas-pas ba yonent bi day wax naan xusoo nisfa diinikum min haazihil umayra loolu pas-pas la seen genn wàllub diine na ngeen ko jël ci ndaw su xees yi jiite ay nit ci yàlla ku ne mën na ko waaye liñ naan jigéen du wax it teguñu ko fenn sunu borom dane fala taxda'na bil xawli fa yatma'a allazi fi qalbihi maradun na qulna qawlan ma'rufan la yàlla wax bu leen rey seeni kàddu ba jigéen ba góor di leen xeemeem daal na dee leen wax wax juñ mën a xam waaye ñu ñu desal ginnaaw jigéen ba mu des ginnaaw waaye xam nga ne jigéen bu desal ginnaaw soxna Asta Walo liggéey liggéey bi mu liggéey ba maam jaara di ci feeñ sëñ Tuubaa di ci feeñ moo tax sëñ Tuubaa xool soxna si ma yàgg mu ne mat nday nday ku kon soxna Sooda ñi ngi bég bu baax ci teewaay bi sëriñ Babacar Xuma jërë nga jëf waaye maa ngi nuyu sëñ Ousmane Xuma duma ko fàtte mukk ak soxna ci Xuma ak ñi mu ko àndal ñëpp waa kuréelu géej gi sëñ Babacar Mbay mii nga xam ne bi ma gisee ba léegi bëgg na sëñ Babacar bëgg na lu xew rek mu bokk ci Baye mbay Ngaraan mais nag maa ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare na ko ñëpp teewlu ndax ku ko teewlu di nga dégg dara allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sëriñ Fallou Diatara jottu luñu sudum nuyoo sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou ñoo ngi ñaan mu yàgg fi tawér xam na ne sa digganteeg moom léegi nag soxna Soda ñi ngi jox kàddu gi kii nga xam ni moom la sëñ Muntaxa yabal ak kuréel gépp muy kuréelu Hizbut Tarqiyyah muy sëriñ Youssou jóob mii nu ko dem leen ca liggéey ba xam ngeen liggéey bi yàlla nangu na ko ànd leen ci ak soxna Sode ak kuréel bi yëpp ngeen màggal ko def ko dama ko bëggee fan yëpp ñu ngi fi ci réunion yi ci kuréel yi ci émission yi loolu lépp ànd koog suñu jëwriñ Ndiédi Lamine Diouf mi nga xam ne moom la sëñ sëñ Youssou Diop lebal kon sëñ Youssou ñu ngi ñaan nga yàgg ci te wér di fàttali ja sëriñ Atou moo masaan ñëw seet su ko daara je yow mii yaa may dugal ca moom ñu ngi ñaan nga yàgg fi tawér yan bii ñu la yan yàlla na coy yi ndax ci dëgg ngeen lu lu yàgg dëgg la sëñ Youssou yow na jox kàddu ko nag yaa wax na turu ayor sodu xuma waaye ñoo ngi siyaare rek honorable député Alioune Badara Diouf ñëw na léegi sunu gannaaw waxoon nañu le ministre d'état Mbaye Ndiaye mi ngi nii toog kon incha allah dinañ ci des léegi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñépp nag ñi fi teew di am rek kàddu yoo xam ne du du sori day doonaat rek soññaat sunu bopp ci lii ñu dëgmal di jiital ci sunuy kàddu ñaanal Cheikh Mamadou taxa mu nu dimbalee tawféex ji ndax sëñ Touba julli ci géej gi sëñ Muntaxa am tawféexi sàkku ndigal ci cheikh moom cheikh Saalih mu sëñ Saalihu Mbàkke yàlla ñu ko yàlla fayal ndigal loolu ñëw 1995 ñu yaakaar ne menn at lay doon sëñ Saalihu ne nañ ko saxal te def ko bisum Dakar ndigal loolu sëñ cheikh Mamadou Muntaxa mii moo nu dimbali bañ jot ci yàlla nañu ko yàlla fayal lan moo tax mu digal nu ko moom moo ko xam waaye faw ñu xool settantal lim ñu ci digal lan la sëñ Tuubaa bi muy julli ci géej gi symbole la héritage la patrimoine la te patrimoine li ci suñu boroom wax lu leer la xusma ataytu ko wa kun mina shakirin bu la suñu moroom mayee xéewal jël ko nangu ko te cant gi nag murit yépp ko bokk ndax sëriñ bi su demutoon nun ñëpp dinañ sangu sëriñ bi bu demutoon géej ñun ñëpp dinañ sangu lislaam it ba mu tolloo ci sëriñ bi di dem géej daf ko ne yaa ma dese ci yaakaar loolu it lu leer la sëriñ bi dafa bind wax ne ida zakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bi larmaahi nafsi walakin zabba anil maahi walakin zabba anil maahi mooy lan nee na saa bu fàttalikoo guddi ndakaaru ak tartar yi ak xet wi nga xam ne dañu yaakaar ne xet la nii fekk na gaz la gaz lañ ko injecté ci biir cellule ngir faat ko saabu ko fàttalikoo nee na nit ñu baax ña lañ daan def te yoon may leen ko mooy jóg fetal jihaat ci la xelam di bëgg a dem waaye rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf ko ne ah yow dong yaay yaakaar ji lislaam dese soo tuuree deret du lijjanti dara tuur deret la ñëpp doon def waaye du lijjanti dara wala ki zabba anil maa yi mooy na nga xam ne yow rek la yaakaar la lislaam yaakaar kon bul tuur deret moo tax bañ ko mayee fukk yu mu mën a àndal ci géej gi may nañ ko fukk yoo xam ne mën nañ ko jàppale ci góor wala ci jigéen mu joxe ngànt si Abdou Lahad mu baax ma nee na may nañ ko fukk yoo xam ne mën naa ànd ñoom waaye daf koo gàntal wane na ne yàlla doy na ko wéttal doy na ko àndandoo yàlla suñu borom la àndal buy dem ci yàlla la jëm kon sëriñ bi liggéeyam boobu symbole la héritage la patrimoine la daf ñu doon wan ne wéetal yàlla day maye waaye du xañe wéetal yàlla day joxe ndam waaye du néewal doole waaye nag faw mu doon dëgg ci yow ndax si Abdul Ahad dafa ne woon yàlla suñu borom lépp ci loxoom la ne wa in min cheyin ila indana xazainuhu waaye wa bi xadrin maalum lépp ci loxol yàlla la ne waaye du ci wàcce dara dara ci yil la ju sëkk kon yàlla bu waxee ne yaa ayyuhal lazina amanu in tansurullaha yansurkum bu ngeen dimbalee yàlla yàlla na leen dimbali ñun nan la ñuy dimbalee yàlla koo xam ne mooy dimbali ñëpp tolootul ci leen bu dee tudd ndimbal jëme ci wàllu boppam am na lu mu ci jublu lu ñu war a xam in tansurullaha yansurkum si Abdoulahan Mbàkke mu baax ma nee na weesuwut bu ngeen ma sàkkalee aw lay ma dimbali leen lay wi mooy wan allahu rabbi wala usriku bii allahu rabbi wala usriku bii nag mooy julli géej gi allahu rabbi wala usriku bii mooy biro ndar allahu rabbi wala usriku bii mooy li sëñ fàllu muy wax léegi nii baha rasulullahi kullu ladbiya alayhimu abqa salaamay rabbiya bi xurbati hasra sinina bi xidam xaalisatin li jul wujoodi wal xidam sinina bi xidam xaalisatin li jul wujoodi wal xidam fukki at yoo xamante ne li dagan ci moom sax sëriñ bi da koo jaayante waxatuma laag def loo xam ne lu suñu borom tere la déedéet bi muy julli ci géej gi jubluwu ci xar baax faw day def li ko yàlla digal faw wa man yulqi nii fi lbahri raw man li gurbati fa lii min illaahi raw du fi kulli xañanami kon sëriñ bi xam na ne ki tee suuf si mëdd mooy tee ndox mi mëdd la kon yàlla suñu borom moo téye lépp addurru wa nafu min arrahmaani laysa min al bidaani wa soodaani kon du ma sore ci loolu yoonu sëriñ bi tawxiit la adduna sépp ko bokk xare badar ñetti téeméer la ñu woon ak fukk ak ñett yéefar yi doonoon junni ak lu topp jullit ñi ñaari fas lañu amoon yéefar yi amoon nañ juróom-ñaar téeméeri fas kon lan moo tax jullit ñi gañe lan moo tax pas-pas ak wakkiirlu ci sunu borom wa kullun waasiqun bil ali kenn ku ne da ne mooy ci suñu borom waaye nag rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ñaan di di ñaan ba kaalaam wadd kon ñaan ngoogee moo lijjanti lépp li tax ñuy ràng ci sëriñ bi di ko jox suñu bopp xam nañ ne ñoo ngi kër kër yi waaye jataayu sëñ Muntaxa bële di ñaan suñu borom mooy lijjanti suñu mbir moo tax ñu def ko ni ko def alxuraan day wax ne bu leen yemale ñaanu yonent bi salaa salaam ak seen ñaan yi ngeen di ñaan seen biir bokkul bu leen yemale ñaan seen ñaan yi yi ngeen di ñaan seen biir ak ñaanu yonent bi salaa salaam kon bokkul ak kenn julli ci jàkkaam képp moo gën julli junni ràkka euh, euh, ci jeneen jeneen jàkka julul jàkkaam kon nun jox war ma sëñ Tuubaa fi lañ ko fekk ci lislaam war ma la fi lañ koy bàyyi kon yëf yi bis bi symbole la man li may wax mooy waa Dakar Serigne Saliou Mbacké mu tedd ma nee na def leen ko bisum Ndakaaru dama bëgg daayira yi bu nu wete ñaamu loolu buñ ko tàng xablu nañ ñëw dundal ko dama bëgg soxna yi nañu laxasaay yu fekk si soxna Soda Xuma ànd ak moom ci liggéey bii Cheikh Mamadou Mountakha bi mu koy woote ki mu jëkk tudd te ku ne xam na ne njàmbaar ci moom la yam mooy sëriñ Mbacké yu fay moom lañu dénk fii baatub sëriñ bi ci ndakaaru kon liggéey bi moom ba mu ko yoree diggante bi nga xamante ne sëñ Maxtaar Diouf yàlla suñu borom dogal na mu yar ko ci njàmbaar def ci coono bu ne ba yàlla suñu borom dogal moom mu war a soppi liggéey loolu am na di diggante boo xam ne sëñ Mbàkke yu fayee ko téye waaye ku ne xam ne ne téye ko mu ko téye boole kook responsabilité yi mu yor loolu yanuwul maanaam moo tax sëriñ Mouhamadul Muntaxa ci gis-gisam bu leer bi xam ne ki ko yoroon naka jekk nekk ci seen ginnaaw di dëgëral seeni doxit mooy soxna Soda Xuma mi mu jiital ko nun nag dañoo ñëw comme ay soldaar armée lañu boo xamante ne boole nañu ñoo moom dinañ ànd ak moom te àndin wi duñ ko sonal àndin wi mooy noo ko bëggee ak lan mooy tax mu baax amuñu baat bu ñuy soxlawoo bu dul woon a kàddu gi ma jox duma fi wax ndax man déglu ndigal mooy li ma gën a liñ ma gën a toqi moom laa gën a mën waaye suñ ma waxloo it ma wax waxi sëñ bi rek ndax aw may wax man kon lii daal moom laa ci doon dolli di sant ñëpp di ñaan waa Ndakaaru ñu xam ne guddi gi tey jii guddi gi maam Cheikh Rahma la lu ci waay fas di ko am nañ ko dundal ci sikrullahi fu waay toog boo ko mënta yëkkati yoral sa kurus di ko dundal ku yor café di ko joxe yaa ko koy defee yam ku yor ay xéewal di ko séddale yàgg ko koy def waaye nañu moytu am po nañu moytu ay caaxaan nañu moytu di fi def loo xamante ne bokkut ak li tax ñu daje fii sëñ tubaa la ñu delloo njukkal ku ku tàmmoon lu ñaaw sax war nga koo rus ndax jëmmi sëñ tubaa ndax ba muy julli ci géej gi yëkkati lislaam rek la ci jubloon ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu nag ku ko mënta jàppale ci liggéey boobu lotti ci war nga mën bis bi nga teewlu wóor nañu ne lu ci waay fas lu ci waay bëgg lu ci waay sàkku incha allah fala budd suñu borom dina ko teg sa loxo inna laa maana <laughs> ndeysaan waaw loolu day leen doon seenu message bi jàll na Serigne Saliou Fall wax na dëgg tey sa bi su maam la sëñ Saliou Fall sëñ Mour Moustapha Fall Cheikh Fall soxna Soda nañuy bàkk jàmbaar yi ngir yambar yi soxna yi toog sëñ Yuusu jàmbaar yi toog ah ngi liggéey ci kuréel ba lu rëy ànd ak soxna soo dox mu baax mi ñoo takku liggéey ñooy jiitu ñoo ñoo mën ci cotisation yi ñoo mën ci cogg yi ñoo mën ci lépp kon nag bu dee bi sa Ndakaaru ngeen xam loolu mobilisé wu at baat aj bu du defe ke ajur soodu xuma waxtaan joxe seen cotisation waa kuréel bi ñëw da fi yàgg de barki soxna jaar bu léegi nag monsieur le ministre d'État yow dañ jox kàddu gi yow tu es membre du kuréel yow kuréel bi ñi ko sas nga bokk bay parcelle di parcelle Babacar bay parcelle di parcelle nga bokk ci kuréel bi di ci def di ci wax di ci jëf di jubbanti ba tey ji nga ñëwaat toogaat nii yàlla na gën a yàgg Ibra moom membre fondateur la ministre d'État ñi sos kuréel bi ci la bokk taxaw ci taxawaay waxam taxawaayu kilifteef la bari na lu yittewoo kuréel gi yittewoo fu mu ko yëgee sotti na dañ koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla guddal fanam te yàggal ko ministre d'État Mbaye Ndiaye kenn la ci kuréel gi waaye Ibra suñu kilifa dañu fa nekk de ah. soxna may laata ngi fi mu sëñ Abdou Karim ah. soxna may daaronk mu sëñ Cheikh Abdourahman borom dër bi waaye soxna Suwaada Fall da nga nii toog di maam Cheikh Fall ci biir ak ñi ñu àndal ñëpp di suñuy kilifa gunge soxna Soda ci toogaay bi di ko wéttali loolu dafa mat a xam gis seen toogaay bi ma bëgg hmm. yenn saa yi yi sax ngeen di jaaraan di wëndeelu nii di xam ne soxna Soda ne toog ak ñi mu àndal di dellu si waat ministre d'état bismillah ما بلاي وما الأمراض وبرضا تنخاد للأخراد ما بلاي وما الأمراض وبرضا تنخاد للأخراد نبينا المختار خير الأنبياء عليه تديما حبيب ربي قلت له كليتي في العلني وسري وليخاد الولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى علي من على تفديلا رفعت خدمتي إلى الماء سنا ولسوانا ساخ كل من فنا هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال سما أحمد على النبي والرسول أحمد أبقى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم سمدي ناجاك عبدك القديم ساسلا مسلما على wala musaasiul xulaa barke borom Tuubaa macha allah jërëjëf ñoo ñu ma tudd léegi seen kilifa defee ne di seen mag di soxna maam Faati Mbàkke moom Cheikh Muntaxa moom Cheikh Mul Bachir xalif général des Mourides ñu ngi koy jox cër mag wàccuwaayam bu baax a baax baax di ko nuyu mu le ministre d'État bismillah salaatu wassalaam ala seydina wa nabiyana wa mawlana eh, xam nga taalibe moom moom njëkk a balaa ñuy nekk ministre wala ministre d'état dañu nekk taalibe di ñaan yàlla nekk taalibe Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool ah, suñu mbokk taalibe bi ci introduction am dafa tibb ci suuratu yaasin wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa qaal yaa qawmi atabiul mursalin muy kàddu goo xam ne dans la réalité moom la maam Cheikh Ibrahima Fall maam Ibrahima Fall moo wone Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul mooy kan ba ñuy wax moom moo tegtal naka la ñuy nekkee essayer nekk taalibe Serigne Touba Khadim Rasoul nekk taalibe Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul lu jafe la moo tax kenn ci njabootam sëñ Fallilou Mbacké ne jaay na ak njureelam def ko taalibe moo tax kenn ku nekk ci ñun di taaliba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul da ngaa war a xool sa bopp est-ce que egg nga ci degré mën a revendiquer ne taaliba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu sol moo tax daje sëriñ sëriñ bu bu fi oote daje ci murit da ngay xool ci maam Cheikh Ibrahima Fall pour jàng naka la ñuy nekkee taalibe moo tax bu ñu leen gisee ngeen di sikkar di sikkar turu suñ borom tabaaraka wa taala suñ borom tabaaraka wa taala Cheikh Ahmad Bamba Xaadim sol ne turam bii nga xam ne def ko boole ak turu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa nee na buñ ko ootee ci dara lu dul jaamu suñ borom di liggéeyal ki suñ borom tànn moom jaamu suñ borom la kuy liggéeyal tànneefu Cheikh tànneefu suñ borom tabaaraka wa moo tax waxtaan bi waxtaan bu neex la lii ngeen ci wax nag dañ ko jëmale ci góor jëmale ko ci jigéen jëmale ko ci mag jëmale ko ci ndaw moo tax ci bésu tey bii fii ci Ndakaaru bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko suuxat kenn ci suñuy yaay di suñuy soxna di suñuy sœur aa ah, nga xam ne tey ñi topp ci gannaawam yépp di ay jigéen dañuy gën a sant yàlla xam ne soxna Sooda Xuma mii day référence la comme ni ko doonee yeneen jigéen ñi nga xam ne ak ku topp ci ñoom rek wallaay danga bokk ci njabootu Serigne Touba Xaadim sol moo tax soxna Sooda ñu ngi lay ziyaara di la ñaanal yàlla comme niñ koy ñaane chaque année yow ak sa njaboot euh, sëñ bi wax nga ko léegi ñaari rakka yii benn yoon lay am ci àdduna mais ragal nañu ne dootul am dem ba ci géej te jël sajaada sànni ko ci kaw géej wàcc julli ci kaw géej ci sajaada ah, am na de mais ragal naa ne suñu xam-xam fi mu yem ak suñu yaakaar ah du bareeti ci àdduna ñu gis ko sëriñ Touba Xaadim Rasuul moo tax foofu gëm ak doylu gëm ak doylu moo tax yéen njabootul sëñ Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall yan nañu yàlla taaf ci barkeem nii ngeen ko doyloo ba wàcce seen bopp ba ku ngeen gis rek def ko ne daanaka mooy seen sëriñ loolu qualité la boo xam ne yàlla nañ ko yàlla may doomu aadama euh, dafa war a xam ne jaam la jaam nag waruta yëkkati boppam lu ëpp ne jaam la moo tax sëñ bi faal ñu ngi lay ziyaara di la yëgal ne euh, yow moom sama jarbaat ma nga may xoolewu ma la jarbaat dama lay xoole ne sama sëriñ nga sëñ Saaliw maa ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax sama sëriñ nga bu ñu dajee rek toujours da ngay jàpp ne sa nijaay laa mais sa sa sa taalibe laa di nuyu nag sama mbokk isbu yi nga xam ne ki leen jiite woon ma bokkoon ak moom université mu bay ñu fa ne damay dem man topp Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul muy sëñ aatu yal yàlla yokk leeram ci arjana firdaws euh, boo demee ba Euh, ki nga xam ne moo wone yoonu naka la ñuy doone taalibe ngeen di liggéey ba ñoom ñu di la jox diplôme a ah, xam nga ne yaag sa kuréel yéen a ngi sur la bonne voie saba veut dire que sur la bon voie Serigne Touba ki koy liggéeyal na la wóor ne tu es sur la bonne voie yan nañ ci yàlla boole ah xëy na loolu euh, prise de parole la pour taalibe bi mais en tant que représentant du chef de l'État son excellence le président Macky Sall sama yo sama taxawaay fii moo di taxawaayu taalibe boo xam ne dafa xam ne yàlla dafa maye te Sénégal bokk na ci may yi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala na ko ci diine bi ah diine bi fu coono nekk rek wala fu jaaxle nekk rek buñ ko geestoo rek yàlla dimbale ñu ñu de ñu traversé ko rawatina nag njobootu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul fii kuy fàttaliku te fàttaliku dafa baax lool pour ñu xool ne nit dafa war di roy ci ñi gën donc fàttaliku boobu ku nekk président la république nga xam ne yàlla moo la tànnal boppam jox la nga am charge président la république moo tax ñi ciy sonn ñëpp bu ñu fàttee ne yàlla mooy joxe ku ci yàlla jox nag na nga xam ne yërmaande war na la njub war na la suuratu baqara suñ borom tabaaraka wa taala fa fa la ñu ko waxe téere bii téere yoonu njub la njub mu dem ca fële nga xam ne fa la jàngale suñ borom tabaaraka wa jox pour ñu jàngal muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqra bismika rabbika allazi xalaqa quatre-vingt-seizième soir nga xam ne doomu aadama li ko war mooy jàng moo tax ku fi yore nguur comme le président Macky Sall xam na ne dafa am lu ko war ci réew mi li ko war ci réew mi mooy taxawu askan wi taxawu diine yi wante également nangoo supporter li nga xam ne ku yore njaboot sax des fois danay am ay rëq-rëq donc yàlla ne la ku fi nekk njiit rek dinaa la laaj ëllëg naka nga yore woon di ma la dénk yal nañu yàlla may lii yàlla may président Macky Sall euh, xolam xol bu yaatu ak yar ak teggin ba diine bi mu taxaw ci li ci war salaamaaleykum wa rahmatullah. dégg ngeen kàddu yi bàyyi ko ci monsieur mbay Ndiaye ministre d'État waaye ñi ngi fàttali nag ne. cérémonie bi di ñu ngi ko ànd ay télévision yu bare Touba TV mi ngi fii sëñ jiiri ñang TFM ma nga nee toog waa Lamfal TV ñëw nañu ak waa Mouridiye ñi nga xam ni ñu ngi ko couvrir lépp an en intégralité waaye nag ah ah waa RTS ñooñu kenn juuti leen fi ñoom moom yi fii ñu ngi leen di nuyu ajaratu gàmmu Jóob ñu ngi lay nuyu di la siyaare xam nan sa taxawaay ci grande mosquée Masaalikul Jinaan liggéey nañ fa ba bi ba bi ñuy inauguré xam nañ fi la alaaji Mbàkke fay teg yàgg sa njaboot googu ñi ngi ñaan ngi yàgg ci wér waaye ñoo ngi siyaare baax maam Faati Mbàkke moom Sëriñ Muntaxa soxna may daaru nee na ñu ñëw na ak soxna soxna may laat waaye soxna Suwaada Faal ñu ko nuyu baax ñooñu ay gan sa sa sa dox amu lañu waaye soxna yi toog ajara soo du xuma dafa jigéen ñu baax ñu ànd ak moom ku lim da nga am ñoo bàyyi waaye dafa am xam ne kenn mën leen a ñàkk tudd soxna Coro Fay ca la bokk ak njabootu boppam gi na fi jóob la secrétaire générale Ami Ndiaye mi ngi nii toog moom it tubarkàlla ñoom ñii dañoo jàppale aju sodux ma ndax ku ñëw ci kër ga ñoom nga fi fekk ak waa kuréel bi yëpp nag léegi nag sëriñ Saaliwu ah maama ko moom Babacar Xuma ñi ngi de ñi ngi de ñi ngi de nuyu xam nañ sa taxawaay ci kuréel bi ba mu tàmbalee ba léegi ndax yow da liggéey suuf di liggéey ci kaw jàppoo ni affaire eh, diw sama mbokk la mbaa nangam ak nangam da bëgg sëñ Tuubaa di ci liggéey bu baax a baax a baax kon ñu koy seere mbooloo mi ngi ñaan gudd fan waaw. sëñ Saliou Fall sëñ Saliou moo ñaanal mbooloo mi. sëñ Mbaye Ngiraan ba pare. waaw moom mooy ñaanal ah, kon nag kon nag kon nag ndigal jib na nee nañu. dana jox sëñ Mbay Ngiraan sëñ Mbay Ngiraan nag man mën naa ko présenté ku xam Serigne Mor Mbay Cissé ca njaareem mi joxe passeport yi ak laissez-passer àjjana yi